question bu am solo mooy pléthore candidature yi ñu gis ci élection yi di jëm euh, damay dégg ay nit di wax ne dafay wone vitalité démocratie sénégalaise mais je pense que loolu day wone ni démocratie sénégalaise dafa feebar mm-hmm. Mm-hmm. pour moi c'est mon analyse parce que ma conviction profonde mm-hmm. mënuñu yeewu ci dëkk boo xam ne dix-huit millions d'habitants ñu yeewu ne ñu ngay jëm candidature présidentielle di am trois cent candidats ci lañ jëm parce que on est à plus de deux cent cinquante je pense loolu dafa jéggi dayo à la limite c'est même ridicule mm-hmm. c'est ridicule dans ce pays là moo tax man xalaat naa ne démocratie sénégalaise feebar na mm-hmm. te war nañu xool naka la ñuy taxawaatee ba lu mel nii du fi amati jox nañu dëgg nag ñun ñi doon xeex ne parenage bi dañ ko war teg ci suuf jox nañu dëgg président Macky Sall mi nga xam ne moo imposé woon parenage bi ndax su parrainage amuloon kon c'est clair que aujourd'hui xaw ma ban mécanisme lañ naroon am pour réguler mhm. parce que la caution qui était en avant à 60 millions wàcce nañ ko ba trente millions mais teewul ba ku ne di nga wuti looy ñëw cautionné ko pour mën a bokk. Mhm. donc mois je trouve que il faut que tey ñu toogaat réfléchir parce que xalaat nañ ne tey boo waree mën a dem nekki candidat mais y a un minimum. Mhm. y minimum jaar-jaar foo xam ne jar jaar nga fa ay ndombo tànk yoo xam ne dinga gis koo xam ne mosuñ ko sax ne mosul nekk sax conseil municipal. Mhm. nee na day jiite réew mi. mosul et en tout cas jaar-jaaram mu ci politique muy ci sur le plan professionnel kenn munu kenn taxul amul lu lu war a tax ba mu war a taxaw ne day jiite réew mi mu ne day bokk mhm. loolu aussi mën naa ne ban sama jàngat di ko indi mooy Sénégal dañu yeewu façon bi ñuy tànnee nit ñi di leen cërale ci réew mi maanaam dañ daan def ay enquête de moralité mhm. xam nit ki foo jaar lan mooy sa jikko lan eh, lan mooy sa passé mhm. duñ la lan mooy sa compétence mhm. comme disait ah, on disait à l'époque de Senghor lom qu'il faut à la place qu'il mhm. mais léegi da ngay yeewu nit koo xam ne kenn xamul fan la fële fan la jóge fan la jaar ñu bombardé ko jox ko ndomb tànk bu rëy ci réew mi du am ñaar ñetti fan benn semaine nga fekk ko euh, amuloon sax welo mu yor ay euh, maanaam huit huit sax dootul quatre quatre ay mhm. oto yoo xam ne xamoo sax seen i njëg mhm. du yàgg nga gis mu tabax fi ay yor fi alal dul jeex mhm. bien que def nañ déclaration de patrimoine mais nit ñi dem nañ ba dootuñu sax toppati yoon boobu faale wuñu ko donc ni ñuy falee nit ñi ci réew mi problème la ñan la ñuy fal problème la donc tout le monde se dit que pourquoi pas moi beneen facteur mooy gagner ensemble gouverner ensemble bi ñu fi tëral depuis les dernières alternances mhm. wane na ne tey ku ci nekk bu ñuy jëm ca làmb ja nga ne mën naa bokk ci mbër yi mhm. bu ma bokkee ci mbër yi même bu fekkee ne man euh, sélectionné wuñu ma mhm. dinaa mën a dem yekkale sama bopp beneen mbër bu taxaw bu ëllëgee mu sedd ma ndax soo xoolee tey li fi am mooy depuis des dernières alternances depuis deux mille Mm-hmm. c'est depuis 2000. Ouais. les grandes coalitions on on ont mis la main sur sur sur sur les les les postes de dans ce pays. Mm-hmm. les ressources dans ce pays. Mm-hmm. ba nga xam ne tey ku fa bokkul. maanaam tekkiwuloo dara. tu dois être partisan. tu dois da nga war a dem yekkale yow. Mm. moo tax aussi parrainage bi dugal nañ ci feem boo xam ne buñ ko xoolee. xëy na dina lutter contre ça ndax aujourd'hui yekkale sa parrain sax du yomb ci fiche ci fiche yi ñu la jox mais nag mën nañ yekkale ji sénégalais yi parce que mën nañu jël seeni ay coordonnées mhm. dem jox ko beneen beneen beneen leader muy def ko ci ay fiche am donc ça veut dire que aujourd'hui mhm. on est dans une situation indescriptible dans ce pays que personne ne peut comprendre qu'on à 300 candidats dans un pays de 18 millions. On va te dire qu'on a plus de 300 partis Mais cela ne le justifie pas. Absolument. Il faut qu'on aille vers des primaires. Mhm. Il faut qu'on change le système politique. Mhm. ba nga xam ne bu ñuy demati ay primaires ñooy am ci camp. Mhm. ndaxte kenn du ne opposition la kenn du ne pouvoir la faut tourner tey. dans tous les camps il y a des multitudes de candidatures. effectivement et ça euh, c'est ridicule.